il s'est permis jënd plus de un million cinq cent suma juumul ci ay billets pour ñëw bégal ay soppe mais aussi pour ñëw soutenir l'artiste Pape Diouf Cheikh Ahmed Cissé ñu leen ñu kontaan ci yow bu baax ci le fait nga invité presse bi yëpp wax ji nag li ci rafet moom mooy presse bi ñëw leen je vais en charge loolu tax taxul presse bi ñëw waaye li ci am solo daal moom mooy yëg-yëg maa nga nuyu ñu lay seetaan ci différentes yëpp maa ngi lay fay di am kontaan teew bi ma jógee prison dafa am message bu am solo bu ma waxoon ma ne dañuy wax ne site internet yi ñoo ko dugal ñoo ko dugal ma ne leen non man ak yéen ñoo far man yéen laa bëgg su fekkee ne teew ci yéen joxe kàddu pour askan wi moo may yóbbu kaso kon du ma fa jóg te ku xam presse da koy fonk parce que dafa am importance bu mu am yàlla ci boppam sax am na presse. yàlla dafa am presse Jibril moo moo jiite presse bi moo daan indi mission bi. Hmm. Eh, risaala bi xibaar donc yéen ay jox nit ñi xibaar donc ku leen xamul rek moo leen di moo leen di jox cër benn ñaareel ba da nga su am tuuti xaalis rek ubbi site di lekk xaalis mais yéen ñiy sonn di dugg ci terrain bi di wax ak ñun euh, du ngeen ci am loolu te bu fët amee yéen la ñuy saagandey donc moo tax man xam bu ma xam média moo tax ma bëgg leen donc suba dama bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw ni ma amee sumay gan mooy xale yu jigéen ñi noonu ngeen doonee suma gan lekk suur naan man di baal mu jeex quoi waaw maag presse moom Euh, ñoo bokk di la fay nuyoo di nuyu ñëpp di nuyu waa référence mooy site bu mag bi xew jamono bi. ok boo tuddee référence nga tudd info. tudd Africa Press 24 tudd tudd tudd Tako TV tudd. live mais univers moom univers moom référence actu non non Cheikh Ahmed xam la laay bañ. propagande laay bañ wala ngay am ñoo ñooy faral fii site bii nga yi nga gis ni ma tey nii ñëpp ñii ñëpp samay DG lañ. dëgg la te man am na fu ma ne ñu may fay salaire. kon nag yemaleen tuddal ñëpp. non li ma bëgg a wax mooy univers moom ki ko moom man kooku laa moom univers maa ko moom man mii toog ak yow. maa moom ki ko moom. waaw donc di nuyu ñëpp di am kontante teew fii biir cosaan di waajal suba. ndaxte bis bu rëy lay doon suba incha allah lu nit musul gis dina fi xew. d'accord ban lan mooy sa diggante ak Pape Diouf parce que euh, c'est première ñu gis la yow nga engagé wu jël tolli ay millions jënd ko ay billets artistes yi nekk Sénégal bëri nañ yaanaa an gogo mais Pape Diouf lañ gis nga nga tippoo ak ak moom lan la daf lim la woy la wala ngeen am relation or bi su ma diggante ak Pape Diouf mbëggeel la bi bi bi ñuy def cassette. Mhm. ci laa doon jënd Pape Diouf mhm. you di màgg loolu am na relation mbëggeel bu neex boo xam ne ci kaas-kaas bi la xewee woon waaw xale bu jigéen bi dafa bëgg kaas-kaas ma dem jënd kaset may ko ko mu neex ko ñu xaritoo ba nobant donc <laughs> loolu dafa may marqué toujours quoi beneen bi dafa wëy yaay wëy bi neexoon suma yaay mbëggeel la daal mbëggeel waaye man ma ñëw Pape Diouf fecc taxut maa ñëw man su ma bëggee fecc mën naa fecc suma kër. parce que am na ñu naan Ameth moom est-ce que war waaw wëy bu neex taxul ma ñëw parce am naa géwél a yu ma gën a xam Pape Diouf li tax ma ñëw mooy man dama ko bëgg te moom daf ma bëgg daf ma yëg man xaw ma nu nit mel ak lu mu am fi nga ma def loolu laa xam moo tax di nga gis mu ànd ak ku ñàkk fayda nga doya dal ko fekk fi ma teg moo ma gënal donc su ma digganteeg Pape mbëggeel la moo waral lii lii commencement la rek mais xëj na bés dina ñëw ma fay génération consciente yëpp kase teg leen stade wala arena kenn du fay. Ah waaw lekk yi sax kenn du ko fay. loolu events lay loolu loolu foog naa ne dinaa ko mun di def ñaari yoon ci at bi Gambie ak Sénégal lu ma bëgg la pour Pape Diouf. Mhm. feeg mu ngi woy maa ngi fi. ci li ma bëgg yàlla nag mooy dogal. waaw yàlla mën naa def sama ñàkk bay ñaani yàlla mën naa def suba ñu tàqale ko mais li ma bëgg man. Mhm. mooy di jox Pape juuf askan wi te gën koo booleeg askan wi. nit nag sañ naa wax li mu bëgg. d'accord une date que tout le monde se prépare moom mooy Pape Diouf dafay dem euh, Diamniadio mag ba. yow en tant que sëriñam en tant que xaritam est-ce que am nga loo ko ciy conseil loolu dafa sori subaa xew gis nga bu subaa. Hmm. mooy wane ndax loolu mën na nekk. xam nga damay ànd ak soixante-quinze jongama presse bi topp ma ñoom suma xarit leen dama leen bëgg. motaar yeeg wii wii drone yi di naaw soixante-quinze ans te daf koy ëpp. Eh. parce que moomoo mii rek jongama yi ànd ak moom dafa bari. jiili jongama yi ànd ak moom am na ñu jógee Europe du caaxaan de bi man nekkuma ci nit ñi nekk. maa ngi waat ci yàlla nit jugee na Brésil nit jugee na France juste pour lii te xawma ma leen ñu ne ndax den ma bëgg xamuñ nuñ may teralee ñu gis na bés bi ñor na ma ñu ñëw am ñu jugee Gambie ma dalal leen loolu am na donc chaque jour charge lay doon du fere bi mais acte bi xoolal lii rek opérés bi rek ñu ñëw dama am seen fay dafa sedd xaw ma fan ngeen jugee am na ñoo xam ne tey laa leen door a gis mais lii mooy li rëy ci àddina mais man awma alal mais dama tabe awma xaalis mais xam naa teraanga waaw donc euh, suba la ñuy xam ndax arena mën na nekk beneen bi arena la 15 anniversaire Pape Diouf la xaw ma arena ñaata nit lay jël mais man 1000 billets lay jël. 1000 billets allah. Mhm. Euh, nga wax ñu tamit ci euh, li nga xam ni moom moo di ñëwaat bi nga ñëwaat ci toile bi defaat sa ay live. produit yi ngay jaay ñu gis ni gindiwaat nga ci ay yeneen produit di ko jaay ñu bëri nag ñu naan produit yu baaxut mais yow yaa ngi jaay maam jaay na mu ngi yow moom yaa ngi jaay li ngay jaay Ahmed est-ce que c'est certifié ak c'est authentique est-ce que baax na. bien sûr xam nga tey euh, man déggaguma ku ne baaxul damay dégg ne na oddu kàddu yi ñi naan amul ci sutura mais baaxul moom déggaguma ko parce que euh, am na comme ñu ma doon tendance yenn sëriñ dem ci ñoom Ndoye Bane. mais keroog la affaire bi sa gën a def exploit donc xamuñ fu ñu may jaar ñu bëri dañuy jël nekk nekk détail ma di leen jox grossesse ñuy changer tur yooyu am alal wala nga am yeneen entreprise wala yeneen rek mu mën a jënd état bu amuñu non ba mu pour démb gis. xam nga ko. waaw villa cristal. villa cristal villa cristal yëpp yëpp ñun ñëpp dem dugg gratuit. mais Ameth dafa am benn liggéey boo non garabu koy dafa dox yëpp. non mais dafa dox am nga problème bi mooy. imaginer Amérique ñoo ñu gën air ñoo ñu gën dëkkuwaay everything ñu ngi jaay. ndax xaaral maa ngi ñëw dama ne Amérique bi ñu gën dëkkuwaay gouvernement lépp Amérique moo ñu ko gën dañuy jaay 500 millions de dollars. Saudi Arabie Viagra moo ko gën a dox donc adduna yëpp la du Sénégal man Sénégal bi ma nekk dafa jaay li may jaay di par rapport ak ñeneen man visé na yóbbu ko eBay yóbbu ko Amazon di jaay cinquante mille pièces chaque jour minimum un million cinq cent chaque jour yàlla xam na ko galu xam na ko bu Zéro Joie Dakar rek la donc minimum un million cinq cent dinañ ko def ci journée minimum suñ jaayee un million doxul. loolu am na ñu koy am cent millions tabe dafa am gis nga nit da ngay tabe nit ñi jiiñ la loo amul mais am na ñuy garé oto cent mu mënuñoo mënuñoo def ci nit ñi man damay wuti maye gis nga nga am ba pare jotul pour tabe loolu sédd nit ñi seen wërsëg. mais man mun naa wuti 500000 juste pour maye du ma ko wuti pour denc dama koy wuti pour maye suma compte banque procédure la pour su ma waree fayee ko xaalis bu bari mais suma compte banque mooy jox nit ñi te yàlla tax yàlla jox donc li may def ci Pape Diouf tey la benn yoon mais am naa 203 xale yu may dundal ci ànd àndalaa buri man may jaay ba woon laaj ko galo moom xam na ma wala DJ Iyu fréquente leen ma dëgg-dëgg. damay jaay ba ngoon may jël liste ñan laa war a mu jeex ko mais lu ko jar donc ak am xaalis du benn mais loolu maa ko jëlee ci Baye Niass waa ji daf ko ne kaay ñu ubbi compte banque nga am intérêt mu ne ko am naa compte banque bu ko mooy loo am jox ko yàlla loo ñàkk jox ko yàlla moo tax fu mu nar a nga war maa reetaan rek ci kaw laa jëma loolu mooy suma secret secret du dara lu mooy tabeek joxe joxe bi nag am na ci loo xam ne yàlla naa tax ma di ko def am loo xam ne suma bopp tax lii may def ci part bi pour suma bopp tax maa ne nekk seetlu suma xol suma bopp. mais am nga ci buzz nag. ah bi nekk ci toile bi moom. yow yaa xew dina am xew dafa am. 1 million 500 moom jënd ko ci ay table. non moom wax dëgg yàlla yaa nekk ci toile bi. non mais non mais. Pape wa war na mag ak rakk bu ñu àndi rakk war na mag war na mën a jox rakk buzz. Pape Diop jox ma ba devoir am la moom mais jamono bii ku ma ñëw sa soirée ñu ñu fees parce que ci man la dama amoon tuuti bës ma dem kaso mu gën a yokk est-ce que du ma delluwaat. suba laay signé ji xam nga lu ci gën a doy waar. suba laay signé mën naa dem registre dama toogal. suba wóorul. d'accord di yàlla si mu ñoo gis nga mu mel ne da nga doon jënd oto man daal xaw ma doon mais gis naa ko ci na romb débiteur yomb na lakkaloo jëfe lakkaloo wuñ ngeen doon romb rek. ah non man gis naa la ko dugg. mu ñëw naan yaa ngi yaa ngi yaa ngi fay. oto laa bëggoon a jëndi oustaz Mouhamed Mbaye xam ne man dama kër mu yóbbu ma ci oto huit cent dix millions. bi gën a gën a yomb cinquante quatre millions. léegi jënd nga yóbbu. dama am njëgam man oto 2 millions laa bëggoon bu xuddu xadd boo xam ne fu ma daw ngeen puus ma. moo jënd ko de wala jënd ko. Mm, non moom xamoo ci dara. soo nekk <laughs> nekku noonu la bi may ñëw ah, ma dara gisoo sa copain. Euh, muy euh, ngi ñëw moom tamit soo yéexee mu ñëw. Macky président Macky Sall ko may cat cat buy jar ma cent xaw ma deux cent millions loolu tamit bi nga ko gisee. non Macky Sall amaluñ njëriñ Californie. may ko oto boobu kon amalu ko benn njëriñ. kon loolu ay rumeur la. jëriñu ko dara Macky Sall amalul Californie njëriñ li ko Cali sonale bu ko sonale woon waaye ndokk yàlla Cali faale Cali ko xaaru ko defar na ndegam te Macky fekkewu ko jabaram fekkewu ko gouvernement fekkewu ko hmm. xarit baa ngi ñii di ñëw léegi mu ñëw kontaan euh, allah mais xanaa lii Jamra du ko bañ. lan la wax. pour so xawaare bi nii. non lii moom lii moom lii moom père du ko bañ sama père du ko dina bàyyi mu caa. Ah, danañ ko xale xale ma jàpp. ah daa ngeen ko ragal a ràññ. amul lu ma ciy bañ. bi laa bañ da ngay ràññ su kii toogee maa war a toog. voilà voilà nit ki ma doon nit ki ma bi. mu jógee sama biir da ko miin sax damay bëgg a dem douche taxaw nit ñëw rek. biir bi nante ne kur delluwaat ma ne mooy jàmm ma toog.